kuréelu jamaatu muridina saadixina wa saadixaati kuréel 1 ak ñu ngi leen di jaajëfal niñ leen ko waxee woon nag ci jataay bi jamono ji ñu toll añ yi moom euh, togg nañ ko ba noppi ba nga xam ne yóbbu rek moo ci des su ko defee lii nag mooy xéwal yi nga xam ne nii moom la yi di barkeeloo ci fii ci tokkoor gi incha allahu rabbi léegi ñu wan leen yi nga xam ne moom la ñu takk ba mu jekk toppatoo ko ba mu mel na mu war a mel ngir yóbbu ko fële ca bayti ca kër Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacke yàlla na fi yàgg lool te wér xalifa Cheikh Moussa Mbacke euh, kon mu mel ni xalifa Cheikh Mouhamadou Moussa Mbacke kon mu mel ni jotaay baa ngi noonu ngeen gis euh, entourage bi nga xamee ñoo yor liggéey bi ñoom suñu Mbacke loolu soxna yi noonu kenn ku ci nekk am taxawaay bu am solo rek ci liggéey bu rafet bu mucc ay bi nga xam ñu ngi def ñu ngi leen jaajëfal ci kanam tuuti incha allah rek ñu ànd yéen kon lépp rek lay doxee bu baax ci teewli gi euh, di yéen a koy gis noonu mbokk yi bi yëkkati añ ngir di ko yóbbu itam fi nga xam ne nii mooy jàngkat yi ñu tàmbalee xewlu bu ko defee bu ñu jógee ci loolu nag war a waajal itam li nga xam ne mooy yóbbu añ fële ca euh, euh, bayti incha allahu rabbi kon bu nee saa ngeen may ñu ñëw jox leen li nga xam ne moo fi feeñ ci jotaay bi incha allahu rabbi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen nuyu te leen ziar bu baax a baax waa jamaatu murid yi na saadixina xaaral ma romb oto bi xaaral ma romb oto bi xaaral ma romb oto bi xaaral ma romb oto bi muy xamle ni liggéey bii ngeen indi ki ko te xalaat ko mooy Seydou Mohamed moo jëkk xalaat dañu baax ji waaye mu ànd ko rakkam yi muy sëriñ Mbàkke Madina xalifa sëriñ Mbàkke Madina Mbàkke moo bi sëriñ Aliou sëriñ Xaadim Mbàkke war ko wut moom fi bitim réew bi mu toog toog Moustapha sëriñ wax ni sunu wàj nekkoon bitim réew ñëw tey toog toogaayu Serigne Modou Moustapha li moo doon def lépp dañ ko ko defal moo jëkk xalaat xalaat boobu wax ni